gars yi aja ñu commencé émission bi ñu commencé émission bi Cheikh yaa ngi nëbb saes bi yaa ngi koy séedee ku wow. yaa ngi nëbb sa saes ak sa karena waaw loolu dafa bokk ci làmb waaw waaw waaw balaa ñoo ñëw ci Baye Mandione Junior ak adversaire am ngi dalal ñaari espoir ci képp ngi rek na nga xel Ousseyn numéro 2 laa dajal ak Cheikh Super Jamono Assane Ndiaye bon production moo tëgg combat bi. nekk euh, journée boo xam ne nii ak lu lamb yëpp ñoo koy bàyyi xel. ñoom ñaar dañoo am combat di bëre ci diggante jour bi nga xam ne nii bébé jën da ciy bëre ak ki nga xam ne nii tey jii mooy gàkku 2. léegi boo sey numéro 2 yow yaa fi jiitu nañ la may nga nuyoo. ñu doog a jox Cheikh Super Diamono mu nuyoo ñu commencé signature contrat bi. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. maa ngi sant yàlla bu wér bi julli ci yonenteem bu tedd bi di gërëm suma yaay di ñu yërëm suma papa di ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko ak bépp jullit bu nekk di nuyu waa Kër Masaar bi yëpp di nuyu waa Daaru Muxti sama dëkk. di nuyu waa Sénégal yëpp maa leen di nuyu di nuyu Fadam adversaire Cheikh Super Jamono ak képp xam ne yaa ngi suivre direct bi maa bi ni ngi lay nuyu di lay soxla yëpp waaye baax a baax a baax non waaw bisimilah rahmaani rahiim di naan sant yàlla julli si yonent bi. di sant sama ñaari bu baax a baax a baax. di ñaanal sama papa Mor faram fa mu nekk gënal ko fi mu jugee di ko aussi sama papa Bayri Sey ak mbooloom ñi fa fekk. di ko ñaanal moom waajuram aussi Boy Sey 2 xam nga ko nuyu di la nuyu yow Fadam tout waaw di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi si live ñëpp. di seetaan di ñuy suivre aussi promoteur bi muy suñu papa Assane Ndiaye di nuyu axlu làmb di rafetlu lii bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Boy Seye numéro 2 yaakaar naa ne ci làmb bëggoon nañoo xam kan ak kan nga bëreel ci làmb. waaw Fadam man ñi ma daan Faalaay Balde Junior man maa ko daan. Boy Sine bu Rock énergie man maa ko ma daan sanguinaire bu école de lutte Balla daan Boy Thiam. Mm-hmm. jëmbal maa daan Mor bu Pikine maa mm-hmm. daan Dudu Xadi maa daan Baratine maa daan Xumbal bon bari na mënuma ko lim daal mënuma lim ñëpp daan ay sax yu bare bare bare bare bare waaw mais dama gis nga daan champion yu bari yooyu ba léegi nii te cër bi booy. seen waaw lool na li ko waral moom mooy. ba léegi amaana tey dëkk bu ñu dëkk muy Kër Massar. moment bu ñuy tegalee série de victoire yooyu noonu. moment boobu noonu làmbu amu fi woon doole. dañu nekkoon ay xale rek mën mën mën mën mën aar bi. Hmm. dugg ci dugg dugge woon ci foofu amuñu woon staff amuñu kon dara ñoo doon toog jékki-jékki woo ñu ménageur Matar Ndiaye mu jox ñu komba benn combat une semaine wala benn komba quinze jours rek ñu dem ànd ak booy dem bëri ji ko ñëw toogaa moment bi may tegale dix combat dix victoire yi sax mun naa ne la musuma xam lan mooy entraînement bu métti lu dul ngoon jot ma dem contact yi ñëw ñu mais nag moment moment bi lamb dafa am doole ci réew mi moment bi loo def lu mu tuut tuut rek gars yi dégg allah te ñu ngi si yoon bi. loolu am na solo. waaw bëri naa bëri daan naa Bourdaali. daan naa euh, Saloum 2. Mhm. daan naa Savala. daan naa Boy mhm. daan naa Scorpion mhm. daan naa Giro mhm. Seras daan naa Giro Seras waaw. daan. daan naa Ziza daan Mamor. Mhm. waaw bëri na quoi bëri na mënuma jàpp ñu ma daan yëpp mais bëri naa quinze combats am douze victoire. booy seey bu baax a baax a baax a baax. mais Cheikh Tidiane Guèye xam nga kii nga taxaw ko. nekk ndaanaan nekk koo xamante ne tey dafa agressif si làmb. su dugg see si làmb. muy bu nekkul làmb sax dama ko yàgg si biir bu dugg see si làmb buy tëkku damay gis ay ponkal lay tëkku. mu nekk mbër boo xam ne mbër bu ma nawoon la mbër boo xam ne dama ko bëggoon. kon tey jii bu ma yàlla jàppale ma dem ba bëreeg war a bëreeg moom loolu sama fierté la. diko ñaanal aussi mom ci comme tey dem jël bi ma jël ah di wax ne tamit jël na ma mais jël na lu tang jere, jërë jërë jërë jër ah jël na lu tang jër parce que mom dafa jël pour am ndam mais man dama ko jël pour bolé ko sama palmarès ah parce que ndana la motax te xamna bu mako ko daanee fan la mo mën yobbu man Cheikh mais xam naa kuy Boy Seye 2 bu baax a baax a baax a baax a xam naa lim. waaw moom xam nga ne. mbër buñ fay. fay ko fay la moom mu dem di préparer di entraîner pure et dure te ko xam Boy Seye 2 xam ne Boy Seye 2 day entraînement pure et dure entraînement dakaa jox cër. kooku ku taxaw naan la Boy Seye 2 neex naa daan sax day wax nii pour bëgg lu la neex waaw. Mm. mais boo siy deux yaa ngi reetaan dafa mel ni da yombal. ko li may reetaan te xale bi espoir bi mënut a leen daan ci benn. li may reetaan nekkul sax si direct ci maa nekkul nekkul sax seex laay ñii laay reetaan quoi. nekkal ci live bi nekkal ci live bi nga wax ak sénégalais yi lay seetaan. boo say dee xale bii bu baax ñi boole daan ren. waaw Cheikh champion la saison gis def. ndaxte ku daan Scorpion daan Gros Seras rek du ma la ñëwal ci victoire yi mujjee am yi rek mais ku daan Scorpion daan Gros Seras rek champion. waxuma la ak nag maam Mor nga xama ne sama doomu ndey la combat bi yëpp ñoo ko préparé man ak moom ma ma ma indi ko Cheikh jàpp ko daan ko daan Ziza bi nga xamante daan Ziza. bi nga xamante ni bi tamit mun naa ne la jeexal na xale yëpp seex ñëw daan ko avec la manière donc kon xam naa ne champion bu mag a mag a mag a mag laay bëreel seex man dama ko nangul champion vingt avant nangul naa ko champion parce que defuma ci làmb lu mu deful ci làmb non booy sey da nyu ñëw da ngaa ñëw pour dox ci maamu xale bi ndax xam naa la mbër seex magu ma ko doo ngaa ko jigu ma ko si lamb seex ma ak ñoo bokk benn année bu ñu bëreendoo benn benn année lamb ñoo ko bokk lamb dara ak biyaay bi dama non du mag de seex bu dee ci at maa koy mag dee koy mag quoi mais ñoo bokk ma bokk benn année bu ñu bëree doo man ak Cheikh Super Jamono benn année laa la Cheikh bu ma juumul sax dama bu ma juumul dama dafa damaa bëree samedi samedi bi si topp bu ma juumul ma ñëw stade indi xaw ma ban mbër arène Iba Mar mu ngi teg ci mikaayam ci angle bi ci côté bi maire yi di jaayee ndox beeg yooyu noonu mi ngi indi ay supporters yi def ay couleurs yu bari nii takk ay jaaj yu bari ñoom Pambaay indi ko te Pambaay yàgg na màggal si daaru ma xam ko bu baax ma ñëw seetaan ji ko su ma juumul sax année boobu noonu sax laa jàppoo ne maa moom si la ñuy bëre. mais làmb dafa nekk li nga xamante ne bii commencement làmb. doo li nga xam lépp quoi da ngay nëbb lu bari. mais comme moment bii nii moment bii nii. non non non non moom xalaatam la wax rek mais man xam naa ne moom a mag moom a njëkk a bëre parce man 2016 man sama combat yi mo teg leen ko mais 2016 la dugg ci arène xamna né mom bima koy suivre bi muy ñëw stade di dëkk ñaga doole diko saga <laughs> am nga mom affaire am yoy daf ko mën quoi. <laughs> non ñaga doole mosuma ko dëgg ñaga doole champion la lu mu def ci làmb defuma ko ci làmb. ma ngi jégalu ci saga bi may wax ni quoi saga ko daf ko doon tëkku quoi. ñaga doole suñu suñ suñu mag la suñu lépp la ñu ngi koy nuyu champion la. oui ma ba léegi dañoo dañoo am rêve bëreeg moom quoi champion la la doole. tamit champion la quoi. non mais jaka lay kontaagal de. oui ma Cheikh Super Jamono man yow laay ah, wax. mais c'est normal c'est le géejawaay bi. waaw du ngeen ma déglu du ngeen ma déglu su ngeen ma déglu. Hmm. Hmm. Cheikh kii da lay

buñ simee ko buñ simee ko ñi seetaan làmb dinañ ne Boy Seye 2 moo gën a dagg dinañ ne moo gën a entraîné ndax moom daa connaissance moom day entraîné dëgg moo gën a dagg moo gën a baax yaram mais bu arbitre sifflé dégg naa mu ne bu arbitre sifflé ba Boy Seye 2 fëgg ngemb li nii tamit dama koy wax ne bu arbitre sible bu arbitre ne ko Boy Seye 2 pare nga mu xaw ma xaadim sey pare nga Cheikh Ndiaye pare nga. billaahi wallaahi taalaa dina xam ne. combat yu mos si àdduna. combat bi lay soog a xam ne mënu doog a bëri. ah ndax hmm? combat bi moom daane day day ñëw rek ñu jàppante non non. Eh, dañuy eh, xeex ba eh. pare man damaa dama am loo xam ne dama ko mënoon si làmb muy xeex. te musuma xeex. te combat bi dama bëgg a ñëw wane sama xeex. te si Boy Seye 2 laa koy wane ndax Boy Seye 2 daa ñeme. waaw loo ko mais Boy Seye non ndax ñeme damay yooru si kon bàyyil ma xaar uppercut rek parce que man bu arbitre soufflé maa ngi <laughs> tànk yi. boo ko jël boo ma dóor la tànk. waaw. ah. man a bëre te bëriwul man daal li ngay def dencal li ngay def ba jour ba. du ma denc dama la koy wax nga bàyyi si xel pour pour dama la koy wax nga baay si xel pour bo ñëwee jël si ko su ma la dóoree tànk nga ne noo lii bettu ma woon. Ah, xam wax ak yow nii. yow la xam naa ko. nante bi nante bi si bi. yow la kan laaj ma man la kan. nante bi si rukk dama bëgg laaj ma man la kan wax la man la kan. laaj ma man ma wax la man ba pare. Seex yow la kan. man la xale màgg na. laaj ma man la kan. yow yow la kan. man la tëx bi. tëx bi <laughs> yow man dof laa man mbaam àll laa. yow man mbaam àll laa. xam nga mbaam àll. waaw déggu ma ko li ngay wax ni yëpp déggu ma xam nga mbaam àll. asa yaa ngi dégg ñu naan mbaam àll bàyyil caaxaan. waaw. mbaam àll laa man mbaam àll laa damay raaj rek. mais attends yow xam nga man fan laa dëkk. waaw. man Darou Moussi laa dëkk. Darou Moussi xam nga man laa man bool bool laa. xam si bool bool bool loo Darou waaw. boo demee boo laajtee ñu ne la rëbbkat yi ñu dàq rëbb ci àddina rëbb. waaw dugg ci àll bi yor fetal di rëbb ci àll bi maanaam mala yi nga xamante ni bii nit ñi dañ leen dañoo am problème pour pour rey leen. Uh-huh. boo demee Darou Moussi ñu wax la ne la kilifa diine ya fa nekk ñoo dàq rëbb man foofu laa dëkk. non mais yow bokkoo si rëbbkat yi. yow man dama rëbb ba tool nii ma tool. non booy say dé yow kaa ma wax la lenn hmm? dama lay wax lenn. yow Sénégal dañ ne da nga fit mais maa yow bu ñu duggee si biir géew bi sa fit day maas man maa la ko wax. billahi bu ñu duggee. laay bu duggee eh, sama combat man ak yow sama combat man ak yow ma lay laaj ba xam da ngay éteint galaaj wala. dama bëgg nga déglu ma lii ma lay wax déglu ma bu baax a baax a baax pour bu ma la daanee bu ma lay yëkkati nga xam ne waxoon naa la ko. sama combat man ak yow wéeru ma ko si gàllaaj su may ñaanu waajur laa ko wéer ak su entraînement damay ñaanlu dëgg la nag damay ñaanlu de mais wéeru ma ko si gàllaaj xam nga yow yow kuy entraîné nag yow di ko wéer si gàllaaj jarul muy dem bëre ji ah ah man lu wow kongu laa lay indil lu kongu ñu bëre ñu xeex bëre amateurs yi contact ku dagg sa biir billet 3000 sa xol sedd guy ñu jël meilleur combat da la ne loolu laa bëgg te man li ma bëgg xam naa ne yow da nga koy def. ndax yow xam naa ne doo mais mais mais mais Fara xam moo ci gën a mooy ci biir io bi biir bi ci biir. lu ci gën a garaaw. xam nga bi mooy kaso bi ci biir. mbayaar gi mi ngi commencé di daw foofu noonu barki démb laa leen dugalal lu mat ay. trente cinq seenu xaalis ay ay jaaro xaalis yu dul jeex pour ñu kaaw ñu kaaw foofu noonu di teg di carte xaalis léegi seex dama bëggoon entre man ak yow ñu teg ñu kaaw moto moto ñu jox ko ñu jox ko ñu jox ko fadam mu téye ko moto mu ma déglul da ngay déglu ba ma pare ba ma daggee ma arrêté wax ji du ma ci waxaat parce que sànq ba léegi bi nga dama lay dégg dama bëgg nga bàyyi mu wax ba pare après nga wax dama bëgg ñu teg machine man a yow machine machine yaa may dégg bu baax a baax a baax ñu dox param ñu téye machine bi waxuma la bu arbitre bi soufflé bu arbitre bi soufflé man ak yow ñiy wax ci ginnaaw nañ ñoppi ñiy wax ci ginnaaw nañ ñoppi boo see dee da ngay da ngay. non faram bi ngi baax muy baax muy baax bu bu bu bu bu bi soufflé ba génn suñu diggante man ak yow. waaw. reculé woo woo yow reculé woo rek gañe nga bi yow. waxuma la daan naa la gaanuma la boo reculé wul rek yow gañe nga machine bi yow. mais sëy yow sëy yow yow yow yow yow daa mel ni yow asa amoo tey jii loo jël. waa lépp mun na see nekk parce que man. moom xam nga man ngay waxal man Cheikh Super Diamono juddoo Géejawaay yaroo Géejawaay sant Njaay Njaay laa sant pire sang nekk bool bool man su ma xamoon nu ñuy ragalee si làmb bàyyi naa bëre yow bu arbitre bi sifflé laa la wax arbitre bi sifflé. man waxu naa ragal nga de déggoo ma ne la da ngaa li nga wax noonu ragal da ne bu arbitre sifflé nga teg machine ak machine bu arbitre sifflé su ma reculé su ma reculé wul gañe naa nga wax n'est-ce man nag dama lay wax ne la dama bëgg dama bëgg yow li ñuy wax nii si direct bi ñu mu nekk loo xam ne dañ koy jëfe ay machine ak yooyu noonu su ma la daanee dama la koy delloo mais dama bëgg nga ut cinq cent mille wala un million li may wax ni Fadam tu lii ñuy wax fekkee defuñu ko man ak moom nga weer ñu nga weer ñu ne man mii maa ko deful wala moom moo ko deful moo xam xaalis bi nu mu toll loo indi man mën naa indi nga teg ma teg soxla ma nga may may déglu ma déglu ma dama laa déglu soxla ma nga may may ay suma arrière parce que dégg nga man maa lay may man suma ma arriéré ñàkk naa su ma la daanul ñàkk naa man maa lay may yow mais yow doo ma may. bu arbitre boo taxawee boo taxawee suñ combat du rang rang ngay gis. xam naa ne dangay yóoru man man moom man moom boo taxawee moom jarul nga ci nga ci nga ci sa énergie boo taxawee comme boo di wax ak man naan ma boo taxawee jarul nga ci yàq sa énergie man ku ku reculer ku reculer suuf da mais mais léegi da ngeen may may. ku reculer lu da ngeen may may man sa ma xumbal man yow xam nga ne moom man ma la reculer lee damaa yegg samay supporter. tey tey tey li ngay wax nii li ngay wax nii bu admissible sa fit day maas man ngay waxal man xool ma. yaa baax na ba nañ ba bu arbitre bu arbitre lee. toogal di xaar fit bu maas dégg nga. le onze yàggatul. na nga concentré wu di xaar fit bu maas. non non man yooyu lijjantiw ma ko mais dama xam ne sa fit day maas. mais mais boo siy dee. taxawal ma Cheikh may ma. boo siy man dama la xam ci làmb attaqué mbër dajeeg mbër xeex bu sax. ndax xale bii boo siy dee pare nga pour dajeeg moom pour xeex moom. waaw. boo siy maa lay dégg. yaa may dégg. ndax xale bi Cheikh Super Jamono combat yi nga indi maam moor indi fi keneen ak keneen yëpp daa dajeeg ñoom xeex ak ñoom ci kaw ndax xale bi. Cheikh mënul xeex jamono dina gëdd pour dajeeg yow ndax dina la fekk. Cheikh mënul xeex. Cheikh la onze di nga xam ah la onze la onze di nga xam mën xeex wala musuma yow dama lay dóor muy daanu param param Cheikh combat bi daf ko dépassé waaw boo xoolee bi boo xoolee karamam bi xam xool état de forme xam xam sport garaaw xam sport ñun ay nante lañ param nu ma ngaaka waaw Zaki lu muy wax nii nii lu muy wax nii amul dara dara dara dara la xoolal mun na ko wax nag parce que mi ngi toog ay xaritam mun na ko wax parce que ay fansam ñu ngi koy seetaan mun na ko wax parce que bëgg nañu kañ ko ne ko jàmbaar nga mun na ko wax pour bëgg a neexal jaay combat bi. mun na ko wax ngir lépp. mais nag mais nag. sëñ yow mi yaay neexal yow. yow yow champion la loolu wax naa la ko si commencement bi. Cheikh champion la bu nekkul woon. man du ma eh, man du ma champion. si yow laa duma champion ko du ma du moom. non yow si yow. yow laa wax ne parce yow. yow wax ñaari wax da ne man. li may wax nii samay xarit ñoo toog man kenn laa toogal su ma néeg laa. man booy seede man nee la man yow. suma bët tegu ma ko si yow dama laa boole sama palmarès te le onze ngay xam ne dama laa boole samay wàññi. man su ma amee lenn lu may bàyyi xel ak yow wala nga ne ma man bis bi daf maa dépassé boo bëggee ma simeeku def yaramu neen pour wan ne la man bu newoon suba pare naa. simeekul. yow simeekul. kaañ simeeku maa yow simeekul. simeekul bisimilah. waaw rek yow loolu kay méttiwul yow simeeku ba pare. simeekul lépp lépp laay simi bu bëggee ñu dese kii saar kese kese man ak moom simeekul. simeekul boo bëggee ma simeeku ba dese caleçon caleçon. si mais non may leen ma bëgg. gisoo gisoo ne sa waay dafa diis dafa jël poids gisoo loolu yow. en tant que sportif quoi madame. xale combat bi bu ne woon tey tey tey tey day neex. xamal ma grand grand ci combat bi dama koy <laughs> xoolal mun naa ko daan ci fraction de seconde mun naa ko daan ci fraction de seconde comme man du ma moroo yow yow yow yow mais dama koy yóbbu yow booy see affaire saba. yow da ngay wax pour neexal la yow xanaa daa koy affaire xanaa la jox bala ngaa commencé dugg si affaire bi. bul géem loolu. waxal dañu wax ci signature bi rek. ah mais yow Cheikh Super jamono ngay waxal man. yow man man man ngay waxal man ñu jàngal ma bëre man ma xam luy bëre ma muus si làmb yow nga taxaw ne yow mën nga maa daan si taf-taf mën nga maa yóbbu à lésir man yow gu combat bi yàggee yow yaay bàyyi te combat bi du yàgg. xam nga moom moom dafa am dafa am dafa dafa dafa réere mbir Fara maa la ko si commencement bi ma ne la Cheikh début combat bi boo nekkee ci préparation de combat lu combat bi di gën di dérouler rek. Gè genè mèk pou konbabi wè la gè yi konsantre ou si kote komunikasyon, si kote lep. Manan, mou mabini, el parek zour si mwen, 14 wè la 15. Sè ak mounou tou fè anterma, loun moun amouloun. Mounou tou fè def lep, loun moun def ou, man ta vit osi non. Mounou tou mou anterma, anterma amouloun. ankay yow ngay wax mais man boo ci jéemee forcé boo ci jéemee forcé ut ci dara dangay ngay doom doo am doole man nag damay forcé man xamal la laay def faram man bi damay nelaw ba dix heures dix heures ah. ma yeewu ñëw bu ndaw wala xalisa wala jaar fa defaral ma sur le plan bu baax ma ma lekk ba suur kapoo tegal ma ataay bi ma toog ci salle bi di seet di connecté wu di seetaan làmb su ngoon jotee ma dem ma dox ndank and ak ben nit sa bokal waw dugg ci géej gi feey ba sama yaram tang ma dem ñibi duma def dara lu may blessé lolu may gaaj moment ni bo sey de man duma blessé won sa damay bëri ci man duma dara lo xamanteni bi xolal pour te dire vrai suñu escalier keri sax su may damay ci rampe escalier di dox ndank pa par wa man nak man man dama lay wax man man dama lay wax limay def suma ma fajar damay dem Param. Param, je suis prêt pour tout le 11 février. Moi, je suis prêt pour tout man, le 11 février. Man, parewuma pour yow dama pare pour samay prochain combat samay prochain combat day nekk mais parewuma pour yow. te damaa bëggoon comme Assane Ndiaye mu taloon ma yeneen ñaari combat dollil ma ci quoi. ma bëre ma bëre yëpp. dama juum dama juum. billaahi li ma lay wax duma dem baax. yow da ngaa. yow dimbale ma nga naan ay vaar yow doo dimbale nit ñi nga naan ay vaar waxal waxu nit nga naan ay vaar la mooy vaar. ma lay wax li ma lay wax nii dama bëgg a taxaw parce que da ngay nekk di wax naan ay yeewu dem géej dem lii dem laa. man damay entraîné mais damay entraînement su ma entraînement yi ba pare am naa droit su ma paree 15 jours avant combat du ma du ma fi nekk di rey suma bopp aw ma am naa droit man la concerné. yow yow da nga pare am yow am nga doole am nga lépp man nag aw ma doole damay uti doole pour daan la. Yo, yo, dal na la asike yow dal la te dama lay gaañ yow bu ma la tàncee ba bàyyi la di nga xam sa kanamu tapet bi bis bu ma la tàncee ba bàyyi la sa kanamu tapet bi da ngay dem nga laaj sa sa jaayam sa doomu ndey Mamor gis nga lii laajuma kenn aw ah, eh, man aw ma kenn ku may laaj aw ma kenn ku may laaj soo bëggee dégg dëgg ba ngaa dégg dëgg man ma yow musuma musuma seetaan sa combat ci sama téléphone musuma préparé si ni ngay bëree musuma def dara xam nga lan laay def dem entraînement ñu teg ma li teg ñu jigéen ma li bu arbitre sifflé ma tegal la pied droite pied bu ma musul bëree si làmb moom laa lay tegal pied droite moom laa lay tegal Fadam li ma lay wax bindal téere laa lay wax pied boobu musuma ko tegal mbër si làmb pied droite laa koy tegal essayé may may may may may may gën a ne may may moo gën a neex jaay may may gën a neex jaay. pied droit Fadam pied droit laa koy tegal. dama bëgg ma ne la damay sub jub ko joxoñ ko sama loxo. bàyyi ko mu daw lekk tànk bu ba jeex parce que loolu la bëgg. yow booy dox. yow du ma laal sa tànk ma moom benn cercle bu ndaw bu ndaw benn cercle rond mooy cercle xam nga xale yi ñu daan fowee cercle. <laughs> cercle laay bëreeg moom fi mu taxaw foofu laa koy tëral. booy seey dama ji man damaa mën a man du ma daan mbër ci comme par exemple mbër mbër boo xam ne dañ naan dafa feebar ma jàpp ko daan ko wala mbër boo xam ne dañ naan amatul kàttan ma jàpp ko daan ko wala genre man ay champion yoo xamante ne dama leen fekk ñu jël arena tour ñii finaalu ma jàpp leen daan leen. man man man yaa ngi sang ba léegi man damaa daan ñoo xamante ne bi ma leen di daan amaguñu defet sabala bi ma koy daan amaguñu defet Gino Seras bi ma koy daan amaguñu defet Boy Zil bi ma koy daan amaguñu defet Mamor gis nga ko dafa tege bool yëpp ma téye ko daan ko si kaa bi Mamor moo ma ko def ku kaaw la ma dóor ran ma jàpp ko foofu yow yow Boy Seye da nga dof yow la onze ngay comprendre li ngay wax nii na nga ko jëfe yow doo ma dimbali nga li ngay wax na nga ko jëfe yow man ngay waxal nga ay li ngay wax na nga ko jëfe waxal naa la nga doo ko jëfe Boy Seye li ma tegal temps bi ma wax ne yow li ma wax nii doo yow ba di sifflé balaa yow boo ma xoolee ma daw ma daw jarul kaamil ñëw eh, jarul kaamil waat ko nii rek Seydina Mohamed xam na ne li nga yow doo ko jóg doo ko jëfee at nga tàll leneen lu dul ay sel pour roowaat sertel xale yi noonu yow dama ma ne la tuy xanaa déggoo ma da ngaa toog xanaa doole seetaan nga Gris Bordeaux Eumeu Sène dara. jamono dem nga seetaan ko combat boobu ngay bëri. yow yow doo réglé yow. amul lu ma yow doo réglé a bëri combat bu man yow man lay man sama combat yëpp a métti. yow si boppam yaa ngi boo séedee baar bi soufflé du ma ñeme. kii ñeme na ma nii si télé bi nii caméra yi nii rek mais baar bi soufflé du ma ñeme. aywaay booy séedee yow booy séedee da ngay foowee sa xel mi de. baax na man fi ma teg sama bët man fi ma teg sama bët nga naan ma ay ay yow yow ñemewu ma la wala yow. yow sa xel mi sa xel mi ñi ñi wax ak yow. Cheikh Cheikh sa xel mi moo teg foofu sa bët xel foo ko yabal mu dem fa sa xel mi moo teg foofu sa bët. boo seen dama lay yow combat yi la sa bëri Eumeu Sène si waroon la tàkk bëri Mbaye la tàkk bëri yow bu ma waxaloo waa yow seen bi mais ñooñu nga wax noonu ay champion lañ yoo xamante ne bi liñ def si làmb defuma ko si làmb man ñooñu laay kontaagal chaque jour ko jëfee mais mais normal yéen a bokk écurie booy sey da juum da juum bi yaa déglu ma fii déglu ma déglu ma déglu ma wax la. maa ngi lay déglu bu baax. mais moom loo mën a entraîné ci rapidité nga entraîné ko da ngaa diis. waaw ay moom kasaw kasaw nga may wax ni yow. man may demal nga entraîné ji. nga ne. xam nga doon yaakaar ne combat bi da ngaa yaakaar damay ñëw indil ay muscles yu ay yu def combat bi ko da nga ma dama yow dama waaw nangul sa li nga mën nee naa la yow da ngay entraîné boo simee doon ne yow yaa gën a pare chef super jamono mais gaynde dama ne la nga déglu ma ak xel bu ñu nee ruum ak jamono bi ne non la yor da nga dof yow xamoo dalantee barki Serigne Bamba buñ dalantee nga xeeb sa bopp. barki ma ma ñàkk sama yaay bi ma jur buñ dalantee yow. yow nga wér yow non non a ma dama a déglu ma nga ko teg laa ko da ngaa da ngaa yéex a yéex a préparé entraînement bi. kan man man man man damay bëri damay damay toog ñu woo ma tournoi ba jënd dem bëri ci tournoi ñëwaat toog suñu biir man chaque jour damay pare. yow tournoi yooyu ngay bëri noonu su ma jugee woon ci lalu hôpital suma demee dama koy jël. yow da nga dof yow yow da nga dof yow man may dem tournoi di tëgg ay Ibrahima yow yow yow da yow yow yow xam nga li Je te, je te connais très bien. Moi aussi, je te la très bien. yow boo ma xam xam naa la lu ko raw te la onze moo la daanee ba pare la la wan na la man dama laa xam. doo yëkkati dama danga may taalal sa loxo ma jëkkati la. booy say deux la daan ba jéggi la la génne. gëmoo li ngay wax da ngay business. <laughs> gëmoo li ngay wax da ngay business commerce ci combat xaalis nga siy wut. allo. boo dëggalee sa bopp dinaa la caw caw yu métti. yow da ngaa juum tuuti da ngeen suuf yéen ñaar tuuti ma laaj Assane Ndiaye le onze Fadam. Fadam noo def ba taxawal ko noo def ba taxawal ko combat bi. non Fadam ñun man damay tëdd ji damay dem entraînement léegi si kanam noonu instant damay def entraînement man instant Fadam Fadam instant yi aw ma temps barke Serigne du ma fekk may xoole billaay wallaay taala instant yi. Fadam liñ ñu waroon wax yëpp wax nañ ko. léegi de toute de toute façon mooy ñi ngi remercier Assane Ndiaye ñi ngi remercier Assane Ndiaye param param di la remercier yow. param moo ñuy toppaat damay toog mu neexal suñu bis damay dégg mu neexal suñu bis dama la déglu ma damay damay dama am lu may doxe ji nii waaw sëñ yow wuy ma am na ci yow jëm da ngaa war a taxaw àdduna moo ñuy seetaan parce que lii nii nii yow mën na si am ay loo xamante ne tey jii nit mën na la may la loolu ak loolu. man aussi noonu. kon ma may man am naa xaalis Samba Diop laay àndal am naa xaalis mu ngi nii. am naa xaalis sëñ bi da ngay xaaj. man booy bi moo may financé. sëñ bi ñoo da na kii. man loolu nekk ni bu lii la booy bu ma yëndee. man taalibe laa dama lay may duma foofu. léegi déglu leen ma wala déglu leen ma léegi may leen Assane Ndiaye bu wax Assane. yow fii la taxaw ne léegi baa ñaa entraînement ba pare ñoo naan ngay entraîné. boo yarul wala boo yarul gis nga boo yarul balaa combat dañ naan nangu sa machine bi lu leer naa la dama lay toj nangu sama machine bi. yow da nga dof yow bala yow tërëm ba sa biir toj nga naa ma nangu sama machine yow man ngay waxal de yow dof bi ngay waxal yow da nga dof yow. barke Seydina Muhammad boo réglé wul ma nangu sa machine. ba combat bi ma ma jox la ko nangul sama machine ma xam ne yow booy sëy samtoo sëy ci live bi laa lay joxewaat machine bi ci live bu faram bi laa lay joxewaat machine bi. yow dama dof yow dama lay yi jaay maa ngi doon feebar yow. yow loo loo yow yow yow bàyyi ma nga ñëw signature ba soxla 31. boo ñëwee ma tëral ma lu ma ko yow da ngaa jël sama avance ba pare di doo ko comprendre. yow mii daa jël sama avance di doo ko comprendre. yow ma ko fu nekk pour yàq combat bi xoolal ma tëj pour di yëpp. yow dama dof man ma yàq sama combat dama la yow. yow man maa bëgg a bëree ak yow dama bëgg a bëree yow. Assane Ndiaye ma nekk jaar fi nekk ci yàq combat bi ma tëj buntu yëpp. billaahi wallaahi taalaahi yow booy say nga yow tapet bu mag la. waa may déglu dañ may bu ma yëngal waa yow. Cheikh Cheikh Cheikh dégg nga booy say. waaw Fadam maa lay nuyu. waaw Assane Assane looy wax amateur yi lay seetaan ak ban rendez-vous ngay jox Sénégalais yi nga xam ni. maa ngi lay nuyu Fadam maa ngi lay nuyu Fadam maa ngi nuyu Boy Seye di nuyu Cheikh Super Jamono di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. waaw xam nga lamb yi yar moom lañ indi lamb yoo xam ne combat ngay combat jàng la ku nekk daa dinaa la dalal ci kanam suuri asal nekk na gën a normal mu dugal ba amee jëf ak abel karam xaaral ma génne la ndax xaaral euh, ma tàggoog booy sëy de ak kees gàcce ba keneen jaar kii bu dóor di daanu lu am moom la am bu dóor di daanu man dañ ma sas dóor di daanu dañ ma sas sas yow da nga booy dóor da ngay tëb ba pare nga da ngay dóor mu daan yow boo xam ne booy tëb booy dóor da ngay tëb yow mënoo xeex matul matul tëb boobu nag daal la nga kaaw. booy seey boo matul ma toll. damay taxaw xool ko nii mu taxaw xool sa kuu nii mu dal ma ma taxaw dox sa kaw encaissé la nga daw dal samay tànk ma taxaw mel ni xanaa da nga dof. ay damay taxaw encaissé sa kuu ak dal sama tànk. boo xaatee sa ma may ma dara. boo xàccee dama lay génneel góos yow. kon kon dama lay génneel góos. yow addu bu ñëw laa lay def. billaay dama lay addu bu ñëw. fay la kaw def. dama lay génneel góos dama lay addu bu ñëw. ku la ëpp problème ci at mi gisuma ko. yow yow yow yow yow yow boo bëree ba pare nga xam ne yow mosoo bëree boo see dee dinaa la dinaa la damay xeex ak yow man waxuma dama lay dugg de damay xeex ak yow yaa may dégg. booy musuma am jabar musuma am doom aw ma génn aw ma dara. musuma am jabar musuma am doom aw ma gel aw ma dara damay entraîné di lekk di tëdd di nelaw. Ah, booy sooy doo doo réglé yooyu jarul ñu ko ah, ay góor lañ. man sama bopp laay wax man waxuma la bopp laay wax am naa droit wax sama bopp. mais yooyu jarul wax fii. buur buy taxaw naa tey bëgguma jigéen. ay yoon nekku ci yow eh, booy joxe nga téye ko. nga utiliser ko pour yow. boo amee leçon de morale nga téye ko. déggoo ma yow Fatou Ngom nga place jaxaay nga sa kër gi nekk place jaxaay Fatou Ngom ngay doo rek eh. Fatou Ngom dégg nga li may waxati waxul dof yaa ngi nii. waxul dof yi waxul dof yow rek yow ñaata la tibal reer. sama eh, eh, eh, koñ ma sa koñ. sa koñ dama ko doon booy réglel de. booy amul réglel. réglel. dara ñu tàggatoo. waaw maa ngi nuyu Babacar doomu xarit Balla Gaye mon ami mon frère Babacar. sama xarit suma lépp. Mm-hmm. di nuyu El Capo. shop ku sol yërew jigéen bu rafet ci àddina moo la ko jaay. mon ami mon frère Capo. bu soobee yow. dëgg la di nuyu Mansour Manu. di nuyu jabaram bu ndaw di nuyu Khadija di nuyu Lëz di nuyu Seexu di nuyu Jaara Faal di nuyu Samba Diop sama xarit sama lépp di nuyu Zeking sa bokkal. di la nuyu di nuyu sama adversaire Cheikh. di ñun ay xale lañ. Mm-hmm. lamb ji ku ci nek da ngaa jox sa morom cieur depuis bam taxé ba lay ku ci nek nango sax wax sa morom lo xamanteni da koy gañ mm-hmm. té ñu dañoo bok ci lamb dañoo wara bok ci millionnaire millionnaire ëlëg yi. Mm-hmm. te man xamna rek gañ na la suma koy bëggé yëngal léegi ma yëngal ko. comprendre nga mais jambar la champion la borom baax la. ma ngoy ñaanal bir diko ñaanal comme nim ko di waxe teral ay wajuram moko taxat Hmm. yàlla ko ko yàlla may yàlla may ma ko di wax ne suñ fi waxee dara loo xamante ne bii dafa dafa xaw a déborder rek ñu ngi koy jégalu di wax ne ñun dañoo war a jaay suñu làmb hmm. ba làmb ji jar te incha allahu rabbi làmb ji man ak moom suñu toogoon di raayante di joxante loxo di joxante cër bu jour ba ñun ñoo fay ëpp supporter hmm. ñoo suñu combat moo fay gën a neex te amateur yu bari ñun ñoo leen fa indi suñu combat la ñu te bëre wuñ spécial li ma li ma faral di wax man bëre lu ma kenn spécial sama journée bopp laa waroon bëri la 17 décembre. bi Iba Mar Diop stade bi daanu ñun ñaar suñu combat dafa yàgg ku ci nekk combat bi yàgg ma ne Assane Ndiaye journée bi boo ma ci dugaloon premier combat sax mu bëri ko pour ñuy wax spécial ñu bàyyi di ma tudd man di tudd spécial. man ñooñu du ma leen bëri mm-hmm. spécial parce que ñoom ñaar ñëpp jox nañ ma leen rek ma ne leen bëriwuma ak ñoom li may wax sama ménageur mu ngi koy dégg Matar. Cheikh dafa nekk champion prouvé daan ay moromam yëpp moo tax ma jël ko bëreeg moom moo ma gënal bëreeg keneen. voilà maa ngi koy ziar bu baax di jox ñëpp. waaw comme ni nga ko waxee rek di nuyuwaat ñi nga xamante ne tey jii ñu ngi toog di seetaan bàyyi seen lépp xam ne consommer taw si émission bi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu sama rakk Moustapha mu ngi woon si émission bi Moustapha di nuyu waa Gama yow. ñu ji li amoon. amna solo gaay amna solo gaay premier première partie bi jeexna ñu ñëw ci deuxième partie bi ci ñaari grand champion yu mag ñu ngi ñi di ñëwaat yaakaar na ne xaaral ñu duggal leen yaakaar na ne fii moom tey ah, ah fii tey du yomb mais boo sey di ak Cheikh Super Jamono ñaari ndaanaan lañu ñaari xale yoo xam ne nii yaakaar naa ne yaakaar naa ne duñu yàq làmb duñu yàq làmb mukk euh, Baba Diène Junior yàq sa adversaire yëpp euh, def leen demande maa ngi leen seen yéen ñaar ñëpp mais ku ma ci dugal dara rate waaw def leen def leen def leen demande ñu dugal leen ndax signature bi neex na trop neex na trop wax dëgg yàlla neex na trop ñu ngi nuyu nag amateurs yi ñuy seetaan yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ah waaw di leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mais gars yi dama leen di dugal ñoom ñaar ñëpp mais day rate xaaral ma xool lu tax loolu. Euh. Baba Ndione da ngay def da ngay da ngay def da ngay def demande Baba junior da ngay def demande sa adversaire waaw njimin Instagram bi bëriwul. Baye Fall Siteu maa ngi lay nuyu di nuyu Youssou Ndoye di nuyu gars yi nekk ci live bi yëpp ngi leen nuyu baax. di leen wax ne rek ne journée bi xam nga Fallaye de te yaram bi daw na. borom sunka sunka gaynde gaynde ah golo wàccel gaynde yeeg. waaw da ngeen di génne yàgg sa adversaire yëpp ngeen duggaat. da ngeen xaar leen da yeen ñu genn yak sa adversaire yépp ngeen duggaat xaaral ma xool mais leen ma tuuti rek gaay ma dugal ma dugal champion yi ndax yaakaar naa ne tey jii signature contrat bu neex la ñu waaw <laughs> wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan gaay ñi ñu ni muy bañ mais da ngeen di génn yeen ñaar yeen ñaari champion yëpp da ngeen di génn live bi ngeen duggaat live bi déedéet toogal ne toogal ne léegi mu fay du yàgg. da ngeen di génn live bi ngeen duggaat ñu mën koo lancer waat xar xar bu leen neexee wala.